auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baabun fi ardihim lahu attamlik mu ne bunt la boo xamante ne mooy bunt bi nga xamante ne ci lay wax ci gaaral seen ñoom yahud yi ñoon waa màkka yi lahu ñeel ko moom yonent bi saa sallam mooy proposé biñ ko doon proposé exposé biñ ko doon exposé seen ay seen ay xalaat pour mu bàyyi woote bi atamlik ba mu jaral leen sax mu jaral leen ñu def ko buur moo tax bàyyi ci loolu lay woy fii mu ne baadu raamu an yu mallakaal badru fihim xiina xaafu min amrihi almutaali mu ne baadu ginnaaw nag loolu ma doon woy sànq ci isra ak ci xotteb weer bi donte sax borom xam-xam yi ñu bëri nee nañ ne isra bi mu ngi am ginnaaw génn àddina abu taalib ñii nee nañ njëkk génn àddina ak abu taalib la waaye bàyyi moom fii daf ko jiital isra bi buntu isra bi mooy rañaan bi mu ne ginnaaw nag li ma woy yëpp raamu sàkku nañu kan moo sàkku mooy waa Màkka yi ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ba ñuy sàkku ñu ngi ko jaaralee ci bàyyi taxam muy abi abu taalib ñu ñëw ci moom daanaka moo doon seen intermédiaire digganteem ak yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoon waa Màkka ñu ñëw ci moom nag moom mi ko doon protéger ne ko an yu malikal badru fiihim ñu proposé ko ngi ci ñu buuraleef ko ñu def ko buur ñoom waa Màkka ndax foogoon nañ ne yonent bi woote bi muy woote xëy na mbiru bakkan la ñu ne comme buur nag moo gën a rëy ci lu doomu aadama nguur moo gën a rëy ci lu doomu aadama di mën a sàkku xaaral ñu proposé ko ñu def ko ñun sax muy suñu buur ñun ñëpp ak suñu giir yëpp moo tax mu ne an yu mallaka albadru fihim ci ñoom ñu def ko buur ci ñoom xii na xaafu waxtu nag bi nga xamante ne ragal nañu tiit nañu min amrihi almutaali ci mbiram mi nga xamante ne mooy mbir mu kawe boo xamante ne daal gis nañ ne daal mbiram du jëm suuf day gën a kawe ndax nit ñi dañuy gën a ñëw di tuub di dugg ci lislaam waaw bañ ko proposé loolu dafa fekk nag ñu gis ne ni nit ñaa ngi buur di dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dem papa ngi dooma ngi bàyyi papa jabar waaw jëkkër noonu ñëpp di dam di ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ragal nag ne seen mbooloo yi lii su yàggee tas màkka nag ñëpp mujj ko topp ñu ne xaaral gaaw ñu gaaw a ñëw def ko buur suñ ko proposé loolu xëy na dina bàyyi wooteem gi summa yaatu lahu bi xayraati azwaajin wa xayri duyuuri wal amwaali summa yaatu lahu topp ñu dikk topp mu dikk mu dikkaat beneen yoon moom bi maanaa Abu Taalib waaye ba léegi it waa Màkka yi la ñooy jaar ci Abu Taalib ñu dikk ci moom di ko proposé bi xayraati azwaajin ci ay njagamaar ay jongama yu rafet waaw noonu daal dikkaat na topp dikkaat na beneen yoon daal ci dikkaat nañu ñoom dikkal nañ ko ci buntu Abu Taalib toujours la ñuy jaar ñoon waa Màkka bi maanaam lu ñu bëgg a proposé rek dañuy ñëwaat ne waa Abu Taalib léegi sa waa ji wax ko lii suñ ñëwaatee mu bañ ñu ne ko waa léegi sa waa ji wax ko lii moo tax su ma yaatuulawu topp dikkal nañ ko ñeel ko moom yonent saa salaam. bi xayraati azwaajin ci ay jigéen yu rafet ci ay jongoma ay njegemaar ñu ne comme bëggul nekk buur nañ ko jox suñu jigéen yi gën a rafet mu takk leen wa xayri duyuuri wala suñu kër yi nga xamante ne ñoo gën a rafet indi nañ proposition nguur mu bañ indi nañ proposition wu jongoma yu rafet mu bañ ñu indil ko proposition wu kër ay kër yu rafet mu ne suñu kër yi gën a rafet la ñuy jël rek daanaka jox la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ wal amwaal yi ñu ñëwati ne ko nag léegi suñu alal yi li ci ëpp nan dajale léegi ñun waa Màkka yëpp suñu alal ñu jox la xanaa loolu dina la doy yonent bi bañ ba tey summa yadnu bi tarki tasfihi ahlaamin wa sabbil awsaani wal afaali summa yab- yadnu topp na jege eh, ci eh, na eh, topp na jege ci bàyyi di dofloo seeni eh, xel yi mooy bi tasfihi ahlaamin na na leen jege daal na bàyyi dofloo na bàyyi li muy wax ñëw ci ñoom te bàyyi dofloo seen xel yi kii naan leen yéen li ngeen wax d- dof la yëfu dof la jaamu ñett téeméeri yàlla ak juróom-benn fukk ak ñett loolu yëfu dof la yéen a ngi koy def te seen soxla yi benn fajiwu ci man maa ngi nii benn buur laay jaamu te terewul ñëpp ak mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm gëm loo leen loolu à chaque fois nag mu indil leen loolu wax leen ne seen yëfu dof yi ñuy def baaxut waaw ndax ñoom muusuñu euh, ci jël sa doom bu jigéen rey te ëllëg nga bëgg a soxla jigéen bëgg a takk soxna xam nga loolu ku am xel du ko def waaw mu ne euh, wa sabbi awsaani wal afaali ak ci di euh, ŋàññi seen euh, xërëm yi wal afaali moo xamante dañ ko da leen di ŋàññi waaye tamit di ŋàññi it seen jë- jëf yi mooy jëfu ñaaw yooyu ñun ma la doon wax léegi di ñu ñuy def bi maanaam daal euh, injustice yi amoon yëpp ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam balaa muy ñëw yonent bi ŋàññi loolu kon seen jëf yu ñaaw yooyu noonu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko daan da ko doon ŋàññi ñu ne léegi nag ñëwal jegeel nga ñëw ñu toog ñu wax nga bàyyi lii bàyyi di di ñu dofloo naan ñun suñu ñun xelawu ñoog ñun lii ak ñun lëleeg sa aay ak yi yëpp teg ko ci suuf Euh, qaala law fi yumnay yumnaaya kaana zu zukaa'u wa yakunu albadru assaniyu fi shimali ma taraktu du'a du'a du'aa'i amri laysa nutqun min alhawa aw xaali bàyyi ne euh, bañ ko waxee loolu jaarale ko it ci Abu Taalib ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di tontu nag Abu Talib tontu bu siiw bii mu ne ko law fii wala bokk law kaana fii ndem euh, nekk na ci sama zukaawu mooy jant bi mburum jant zukaa suñ ko indee mooy mburum jant mooy jant boo xam dafa dem ba xonk noonu muy mel ni ceneer yi mel ni mburu noonu moo tax wala fii di ko tuddee mburum jant mu ne même su fekkonte ne mburum jant jël nañ ko ñu teg ko ci sama loxo ndeyjoor wa yakunul badru mu nekk ci sama loxoy càmmoñ weer bi asani yu ba weer bi nga xamante ne mooy weer bu leer bu yëkkatiku bi fii chimaali ci sama loxo ndeyjoor maa taraktu du'a ah du ma bàyyi mukk du tax mukk ma bàyyi woote bi nga xamante ne moom laay woote ndax du'a yi sama woote bi sama dund mooy sama giñ man man yonent bi lay sa nutqun nekkul muy muy wax boo xam ne wala ak woote boo xamante ne minal hawa ci sama bànneexu bakkan laa ko laa ko teg aw xaali wala ci sama tànneefu bopp wala samay mbiru bopp wala samay yëg-yëg léegi nag ba yonent bi tontoo tontu bu foor bu siiw boobu noonu sallallahu alayhi wa sallam ah yéefar yi nag da- ne kii nag moom ci loon daal di mer nag ne kii nag moom lu tubaab bi di wax il ne paie rien pour attendre kii nag léegi nan nan nan nan nan jëflanteeg moom bàyyi ne shaddadu izakal adawata dëhran wa asaa'u lil mustafa bil maqaali mu ne nag shaddadu ginnaaw loolu yëpp nag ñu daal di nag taral nag al adawata mooy nooneel ga léegi nag nooneel gi nag moom léegi moom daanaka moom maslaa bi moom léegi daanaka maslaa bi moom léegi amatu fi place daal dañuy dañuy xu- day day- indi daal les grands moyens daal indi daal xeex daal ginnaaw gi daal taral nañu nag nag nooneel nooneel ga eh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isaaka mu ne ci boobale jamono dax mu ne daxran diitu jamono nag waaw diitu jamono waaw diitu jamono bi maanaam depuis boobu depuis proposition yooyu ba mu ko bañee ba tey ba tey nooneel gaa ngi gën a tar waaw nooneel la goo xamante ne ñoom daal euh, ñu ngi ko continuer bi maanaa daal léegi daal à partir de moment boobu lañ commencé nag noonu di ko taral di taral noonu bi di def yu gën a bon di ko jëmale ci moom ba nga xamante ne xare ya ca la tàkk ak ak mm, la ca tegu moo tax mu ne shaddadu isaakal adawata dahran mu ne wa asaa u topp nag ñu ñaaw ñu koy ñaawal topp ñu ñaawal ko lil Moustapha ñeel Moustapha ki ñu tànn bil maqaali ci ay wax bi maanaa nag léegi yamatul ci loolu waaye dañ ciy sax boole di eh, di- di ko ñaawal waaw nooneel ga daal noonoo ga daal teg nañ si nag léegi ay wax yu ñaaw a ñaaw lu ne ñu waxoo ko waaw mu ne suma wala xadbaanu taaha ka laysin lam yakul laysu bilkilaabi yubaali ndeysaan bàyyi na nag su ma wala topp mu dëddu eh, wane ginnaaw moom yonent bi salaa salaam eh, xadbaanu fekk nag mu mer ndax su fe- eh, mun su dee xadbaana la boobu xaal la xadbaanan day dagg bayt bi ñu ne xadbaana parce que boobu ci xaal lay doon waaye dafa am benn sëriñ daara boo xamante ni da daan da ko daan wax mooy ibu ibrahima mari ibrahima Thiam ñu koy woowee ibu mariama da daan wax mu naan ci wàllu grammaire saa yoo xamante ne rek wax nañu mu baatu mu ñuy firi comme ñu ne euh, suma wala topp mu ah topp mu dëddu tottu mu mu ne kon euh, loolu day wane ne euh, kii la euh, daanaka xabar la ndax euh, mu- mubtadaa bi dañ ko xasaf waaw ndax euh, euh, xasaf nuñ ko xasafee ndax mooy moom huwa su ma wala huwa moom kon moo tax mu doon xat baanu euh, bàyyi indee ko ci wasnu yóbbu faailatu faail ci aarub mu ne kon summa wala xadbaanu taaxa taaxa nag bu loolu euh, nekkee ci noppam yi nag mu mer nag mu daal di wane ginnaaw moom yonent si bi kalay sin comme gaynde mu mel ni nag léegi gaynde waaw mu mel ni gaynde daal waaw comme moom it wax na dëggam ñoom it ñu indi seen dëgg di forcer di forcer ñu dem ba mu dem ba gis ne Abu Taalib kat euh, mu ngi commencé am faiblesse ñu ngi koy waaj a euh, ñu ngi ñu ngi koy influencer nag ba léegi ci la daal di mer nag wax Abu Taalib wax jooju noonu ba pare wane ginnaaw waaw donte yonent bi saa salaam xam ngeen ne du mer waaye mer goo xamante ne la. Euh, merab nit ñu dëgër bopp ci réer waaw mu ne ka lay sin mu mel ni gaynde lam yaku laysu bilkilaa bi yu baali lam yaku laysu bàyyi ne nag ah xam nga ne gaynde gu mer gaynde diggu njolloor ah eh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne xam nga ne kooku du nekk ci moom mukk muy ragal ay xaj gaynde yi digg ñool njolloor mer tàng lu romb mu fàdd xam ngeen ne kooku nekkul ci koo xamante ne day ragal eh, ci ay xaj yoo xam dañuy mbow nii rek mu ne xaala amu nabi fii yaakaar naa jaar ak majruur la war a doon téere bi niñ ko imprimé mu ne qaala amu nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy abu taalib dak daal di moom it mujj fi siwam googu ne ko fas da bi ma tu umaru waaw abu taalib daal di moom it gis ne na daal ñii tamit la ñuy proposé xelewuñu ndax lan lañ ci proposé ñoom it dañoo ñëw indi ku mel ni Amar Amar ibn al As nga xamante moom moo àndoon ak Abdullah ibn Abi Rabia ca keroog ca najaas yu ci négus bi Éthiopie pour ñu convaincre najaas yu mooy buur bi négus bi pour mu pour mu bañ a làqati jullit yooyu na nga xam ñoo ñëwoon làqu foofu noonu ci seen gàddaay bu njëkk boobu léegi nag ama amar comme noonu dafa nekkoon ku rafet dañoo daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko léegi yow bàyyi ñu jox la léegi amar ah ma nit ku baax la sell rafet ku kawe si ñun la nga wétali koo ko nga def ko sa Muhammad Muhammad nga jox ñu ko ñu rey ko